un certain niveau stratégique profil yu jigéen yu yu am solo parce que nee naa leen j'aime bien qu'on qu'on ñu genrer c'est très bien mais il faut pas que ñu genrer pour genrer donc il faut que aussi ñu am ay profil yoo xamante ni dinañ mën liggéey bi nga xam moom lañ leen di dégg jigéen yu mat seen place yoo xamante ni tàggat nañ leen bu baax a baax mm-hmm. parce que aussi gis nga loi parité bi li nga xamante ni jural na ko Sénégal je pense que bu ñu ko évaluer xëy na am na ci loo xamante ni ay manquement la yoo xam war nañ ci ñëw bon c'est mm-hmm. pas une question de donc li ma bëgg a wax ci finance islamique ak finance conventionnelle c'est-à-dire que mooy la différence mais euh, euh, yaay faat foofu la ñuy am souvent souci mooy euh, kii bi jargon technique bi nga xamante ne da ciy tëju bon je sais pas les autres ah mais honnêtement man j'ai du mal à comprendre man fi may wax ak yow te bu fekkee ne xëy na ñun ñi nga xam yàlla suñu borom dimbali nañu ñu am as tuut njàng ñooy am souci pour mën a percer yenn kii je pense que ñi nga xamante ni mooy seen cible bénéficiaires yi dinañ gën a am souci beneen bi mooy encore une fois c'est le secteur informel dañu informel ci boo waxee monde rural Sénégal rek informel day dugg mm-hmm. léegi ñooñu tey ji par exemple pour ñu accéder ak intermédiaire bi ngeen dugal seen diggante est-ce que tey li ñuy daw ci banque is classique yi ndax du ñu ko fekkaat ci wàllu financement boobu est-ce que du ñu retrouver waat le même problème leneen li mooy l'inclusion financière loolu aussi bëggoon naa ko comprendre un peu beneen bi mooy la la pérennisation des petites et moyennes entreprises c'est parce que le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises euh, bu ñu la génnee le chiffres chaque année da ngay da ngay waaru ci yàlla li tax mooy dafa bëri ay enjeu surtout multinationales yi nga xam dañuy ñëw parfois accaparé wu loo xamante ni ñoom waroon nañ ci liggéey léegi yéen nan ngeen di def tey ba petite et moyen entreprise yooyu dee bi ñuy dee jamono bu nekk ngeen def face à sa donc loolu aussi je pense que ne c'est extrêmement important beneen bi mooy est-ce que soxla woon nañu def ko un programme bu toll nii bu fekkee ne les mécanisme yi nga xam ñoom ñoo ko war a porter nekkaguñu en place. waaw ah, est-ce que tey jii euh, vous n'avez pas l'impression que vous êtes payé presque à ne rien faire euh, non pas du tout damay commencer ci li nga wax bu lu mujj c'est-à-dire on n'est pas payé à ne rien faire c'est-à-dire on est on est payé pour mettre en place les mécanismes donc du moment que mécanisme existé wul il faut que am ku ko fi def. moom de yu garaaw lay laajte. waaw il faut que am ku ko fi def rek. donc yow faral daal. donc sama géer gi. donc eh, loo gis bu fi ñëw sama géer. dafa am tàmbali. dafa am baa donc tey jii euh, mécanisme yi nekku fi il faut mu am ku ko fi def promise loolu mooy mission am mission am du du financé mission mooy indi mécanisme yooyu ngay wax pour que la microfinance islamique puisse être benn offre de produits pérenne boo xam ne Sénégalais auront le choix jël finance classique waaye jël doxalin wala jël beneen doxalin bi. kon su mécanisme yi jeexee dafay jóge est-ce que tey jii am ngeen deadline c'est-à-dire que ban temps la leen gouvernement du Sénégal jox na leen fii bu ñu ci eggee lii la ñuy mettre à votre disposition comme fonctionnement dañ leen di suivi évaluation mécanisme yi durée bi lañ leen war jox une année ou deux. ngeen jeexal ko totalement pour jàll ci leneen comme ça programme bi dootul dootul kii. alors programme bi dafa nekk partenariat banque islamique ak état du Sénégal ñoom ci ñoom ñaax dañuy jël programme bi en charge.